aujourd'hui, comme on avait jubilé à Ziguinchor, oubliant que la Cour suprême ne peut pas se contredire et que quand le juge inférieur défie le juge supérieur, sa décision est toujours annulée. faire un pouvoir en cassation comme, on l'avait fait à Ziguinchor. Et la même procédure va suivre son cours. Mais moi, je me félicite quand même de l'indépendance de notre justice. Qu'on a sali cette justice, qu'on a dénoncé cette justice, entre guillemets de Macky pour Ousmane Sonko, qui n'a aucun respect pour elle. Cette belle dame, dame justice, au lieu de la caresser, Sonko l'a toujours giflé, l'a toujours insulté. Cette justice a montré à maintes reprises son indépendance. Le Sénégal aujourd'hui doit être fier de sa justice. Mais comme vous le savez, la justice, n'est pas liée aussi. Première instance, instance, grande instance, appel, cassation. Quiconque jubile parce qu'il a obtenu une première victoire dans le cadre du procédure judiciaire n'a rien compris. Et est un exemple, comme Dakar sera un exemple. On jubile, on crie victoire, oubliant que c'est une juridiction inférieure qui a pris une décision qui va être cassée. Et ça, moi, ça me fait rire. Il voulait regarder aujourd'hui jubilé. Jubilé par rapport à quoi il ne sera pas réintégré <laughs> eh, ah, Est-ce qu'il y, y, a une décision définitive ah, Il y a une petite et euh, provisoire décision. tënk ko ci wolof mais tey voilà décision bi. Euh, euh, li ma leen mën a wax mooy nawoon fawoon tëb di cëppi cëppi Ziguinchor naan day bokk day bokk fàtte ni Ziguinchor comme Dakar tribunal bu nawa nawa naw la.

kenn moomu ko ñi doon fenn di yàq dëru justice naan justice bi Macky Sall moo ko moom ku fa dem lu neex Macky sal ma fay am xanaa Ziguinchor ak Dakar war na leen ni juge kenn moomu leen dañ bàyyi fenn li mu ne mën a mooy atte jaar ay yoon bu lu kenn mën ñaar moo ko dàq Ziguinchor ak Dakar benn atte kenn mooy atte benn juge Cour suprême juróomi atte kenn yu olof jaay nee lu kenn man ñaar ko dàq moo tax cour suprême juróomi nit ñuy àtte pour xoolaat li kenn doon def waaye nag ko xamul-xamul loo jàngul doo ko tari ñi jàngul droit xamuñ procédure bu leen neexee ñu kontaan olof Njaay mu ne ñi ko fecc taxul mu jëy géew olof Njaay dee na ñi ko fecc taxul mu jëy géew fecc nañ Ziguinchor xale gu cour suprême feccaat Dakar ëllëg ñu xale gu waa cour suprême ndax Cour suprême mënul weddi boppam quand kon juge bu jël risque ni yow mi maa gën a kawe ci kaw la nga wax tey faalewu ma la ñu delluwaat ci kanam kooka kooka lan lay wax kon ñii cëpp cëpp tey <laughs> dama leen di xool di ree dama leen di yërëm. mani atte tant que jeexul mënuñu exécuter tous. ma ne fii la ñëwoon naan si ngay soog na nañ dem ah na DG déposé waat mais kon cour suprême keroog bi mu ne atte si ngay soog baaxul bu fekkoon dugaloon de histoire Sonko ba pare ko du def da ko génne waat encore te ñu dugalaat ko ginnaaw soo ñu génne waat ko loolu loolu loolu xel la loolu mooy dof yi wax te jànguñu droit boo jàngul nag nekk bàyyi ma ngay nekk droit boo nga nit da ngay loo ci loo xamul loo jàngul mënoo koo tari. li ma neex li ma neex li ma neex mooy suñu réew daal moom ku am droit dina la ko jox yoon am nga droit dem ca boo demee am ngay droit am ay avocat lu leen neex ñu wax juge bi atte boo d'accordul ñu yëg ca kaw ñu atteewaat loolu mooy réew de droit jërëjëf Sénégal jaaraama justice attekatu Sénégal nañ dem naqare bi jeexagul gañe nañ benn bataille si Ziguinchor ñu duma leen cour suprême gañe woon nañ benn bataille bu ñu demee ko suprême ñu dumawaat leen da ngay gañe benn bataay bi gañe wala guerre waaye nag ah dof moom dof dof rek lay nekk ku xamul xamul kuy fecc te ñu ne njëkk a taxul mu jee géew yow géew bi jeexagul combat bi jeexagul ngay fecc yow wéroo

beneen beneen yoon keneen daan ko ëmma seen daan ko mu yéegaat ñëwaat justice da ngay daanu di jóg di den di daanu tey Balla Gaye day daan Modou Lo ëmma seen ñëw daan ko Modou Lo ñëw daan ëmma seen ta dafa neex comme làmb dañ naan comme làmb reenu ñàmbi doo xam fu muy demee li wóor mooy boo daanoo am nga droit laaj beneen combat da yéeg fa nga max na nekkee benn encore fa gën a kawe mais ah ah yéen ah daan nañ ma fii waaye daanoo ko wëde ndax am naa droit yéegaat ci kaw ne atte bi ñu atte woon jaarul yoon àndu ma ci loolu tant que jeexagul yoon dañ koo bind dañ koo bind ci ay article nii lay demee tant que jeexagul am nga droit di yéeg ci escalier yi

waaye nag waaye nag njëkk a fecc taxul mu jéegeew même boo gañee tey yoon may na keneen ki mu yéeg te mu yéegee mën na la gañee kon ko xamul mooy tëb di fecc di gañee na comme Ziguinchor ba dina fecc Ziguinchor Cour suprême ñuy jooy tey ñu ngi fecc ñu dana war Cour suprême du jooyaat est-ce que juge dina seen bopp est-ce que Cour suprême dina boppam xam nga ki ñuy fecc tey amuñ xel ah bu ñu xamoon droit xam procédure dañuy jooy duñu fecc ma de mosuma gis àttekat bu am xam di wax di boppam Cour suprême moo ne lii notification bi jaar na yoon donc Ousmane Sonko yëgoon na ni dañ koo rajee kon forclusion am na waaye léegi bu ñu nee loolu amul nañ ko bidaat parce que juge suprême dina weddi boppam da kay ñun dañu ko ree rek dañu sax di xoolal dañu xaaxataay ñun dañu ko daan ndax affaire bi day mel ni xoolal ñu may la avance ci benn course ñu jiital la nga am 100 mètres ñu ji jéem def 2 kilomètres loo ne mal dàq daw loolu am na léegi ah kii dañ koy may tokaar la dañ may tokaar la dañ koy may mu jege mu avance mu ñëw double ko romb ko ñëw ci ci ligne bi ma ma gagné kon kañ kuy jox coupe bi <laughs> xam nga koo may bu yoxal ko mu départ di di dal nga ñëw romb ko vif kan moo gagné affaire bi du léegi de affaire bi ca fin ba la li ñuy wax la décision définitive mu tax réintégré la boo ko amul nag kenn du la réintégré mooy lan mooy doo bokk ndeysaan. tribunal bu Ziguinchor ak bu Dakar bi àtte ko jox est-ce que dana yomb cour suprême. cour suprême weddi na Ziguinchor ni ko lii nga àtte baaxul ndax signification UC bi nii nii la demee tey kii ñëwaat waxal li Ziguinchor waxoon waaw cour suprême la lay wax. moom it la ma ko defee hey la ma waxoon laa waxaat kat yow Dakar dañ lay font kon. la ma waxoon daal waxaat lépp jaar na yoon kon saa waay mënul bokk. maître maître maître s'il vous plaît chef. maître demal taxaw si digg bi.